bismil ilaahi maa ngi doore man di way góor baax gi daal moom mi kamaal la ahlu maka tànganaan góor gi kamaal la ahlu kër ngumba nga naan góor gi kamaal la ahlu maka tànganaan góor gi kamaal la lu karungu mbaa nga naan yow mi kamaan nga kooku mooy alxaaji Ousmane Touré góor gi làqu na tey nañu kooku gi làqu juma ja jooy na ko palaas dëgg la fa amoon palaas boobu jooy na tey bàyyi Ousmane Touré mi juma ja jooy na ko palaas dëgg la fa amoon palaas boobu jooy na tey bàyyi Ousmane Touré mi jàngaloo njabootam yar na tey njabootam kana bàyyi Muxtaar Touré mi kana doy na leen njabootam yar njabootam kana bàyyi mu taar kana doy diina jee jooy na ko tariqa kër Mawdo jooy kër Baay Ñas jooy diina jee jooy na ko tariqa kër Mawdo jooy na ko kër baay ñas jooy na ko da daan soññi ndaw ñi ñi jëm ci géewu wazifa da daan soññi ndaw ñi ñi jëm ci géewu xaadara da daan soññi ndaw ñi ñi jëm ci géewu wazifa da daan soññi ndaw ñi ñi jëm ci géewu xaadara boo ko xamul ci doomam baay muxtaar mi fi gindi ndaw ñi tey jëmeele si yàlla boo ko xamul xoolal ci doomam baay mu taat gindi ndaw ñi tey jëmeele si yàlla boo ko xamul xoolal ci doomam Omar Tuure mi fi ndaw ñi di leen xamal diina ji boo ko xamul xoolal ci Omar Touré sama xarit mi fi ndaw ñi tey xamal diina ji boo ko xamul xoolal ci Omar Touré sama xarit mi fi ndaw ñi di leen xamal diina ji boo ko xamul xoolal ci góor gi di bàyyi kaati mi fi téye njaboot gi di leen ci diine boo ko xamul xoolal ci góor gi di bàyyi fi téye njaboot gi di leen ci diine boo ko xamul xoolal ci doomam sëriñ tuure mi fi téye di ko def boo ko xamul xoolal ci sëriñ tuure mi fi tee teraangam di ko ci diina yal na yàlla dëkkeel ko ku yonent bi aljana bi jaahi yu baax yu fi xaaloon démb diina je yal na yàlla dëkkeel ko ku yonent bi aljana bi jaahi yu baax yu fi xaaloon démb diina je salaatu ak salaamatan daa'iman amatan yal na yàlla saxal ko ci góor gi léegi njabootam yal na yàlla dëkkeele ko ki yonent bi aljana bi jaayi baax yi fi xaaloon démb diina ji salaatoog salaamatan daa iman wi amatan yal na yàlla saxal ko ci góor gi léegi